Nous communément commune Sacré-Cœur pour fêter suñu 23 juin suñu 23 juin dañ ko doon fêter def suñu barbecue wacc suuf policier carrément leen ñu ne ko pourquoi mu non xamul pour le moment dañ ko mu mais Mermoz plage du privé ñi ngi sangu fi le 23 juin ñu ñuy jëlaat suñuy bagages yi te ñun dañu ñëwoon pour def barbecue toog waxtaan entre jeunes cafre loolu kese la. te gis nañ tamit bi ñu ñëwee ci chantier bi ñu waxoon dañ koy arrêté pour le moment ñëw fekk fa ay vigiles ñoom ñëpp yor arme ay nervi boob ñoom ñëpp yor arme ay pitbull ay doberman lépp taxaw fi. police kese fi nekkoon police dem woote renfort gendarmerie ñëwaat taxaw. léegi nee nañ ñu carrément nañu génn fii ñu ne leen même bu ñu taxee commune Mermoz Sacré-Cœur dañuy génne xaw ma nag après loolu bu ñu leen waxee loolu xaw ma lan moo xew ba ñoom ñu dem seen yoon mais ba léegi kenn mënul wàcc ci plage bi dañ def lu leen neex fan nga gisee chantier boo xam ne police da lay sécuriser ay nervi sécuriser leen loolu amul fenn man li may wax rek mooy que ñun waa Dakar nañu toog 17 ans, surtout jeunesse bi dinañ dem suñu biir kër yi ñu fa suñu kër suñu kër ak suñu kër et ce n'est pas normal. mais quand même le combat va continuer. le combat continue dinañ gën a dinañ organiser wu ñëpp dinañ comme nous ñu à chaque fois li suñu leader di xeex littoral bi le 23 juin nous xam ni euh, li fi ans ci ñu ñëwoon pour feddali konoré pour wanewaat ni ñun sénégalais yi dañoo bëgg suñu réew dañoo bëgg suñu gox fi lañ dëkk Mermoz euh, Sacré-Cœur màggee fi yaroo fi ñu ne léegi ñu gis lu anormal bi ñu ne dañ fiy ñëw toog wane ne ñun ñoo dëkk suñu gox ñoo ñoo ñoo dëkk si Mermoz ñoo dëkk si littoral bi donc pourquoi ñuy jaay suñu suuf ak di ko di ko jox ki nga xamante ni benn nit bi nga xamante ni muy dund ci plion euh, ay milliers de sénégalais

ñu ngi wax ni euh, sàcc bu dul rëcc jarul la yàq yi nelaw suñu leader wax na ko lu dul jeex du am nul ne éternel Macky Sall dafay jóge incha allahu rabbi lii dinañ ko delloo sénégalais